salaamaaleykum askanu Thiès maa ngi nuyu maa ngi municipal de la ville de Thiès plus particulièrement les adjoints au maire les yi nga xamante ni ñoo may jàppale ci bi nekk ci suma wet toutes les présidentes de commission tous les présidents de commission mais aussi tous les conseillers municipaux de la ville de Thiès may nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi ci dëkk bi di nuyu délégué chefs yi à travers suñu maam suñu wéyjur Pape Souleymane Kanté waaye ma nuyu berel nuyoo samay bàjjanu bopp di bàjjanu gox ma leen di nuyu bu baax di leen ziar di bekki seen taxawaay ma nuyu kilifa yi nga xamante ni yëpp yëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw fekke ci suñu jotaay bi nuyu les artistes de Thiès les comédiens de Thiès à travers la figure de Sanex de Serigne Ngagne de Ngouri mais bu faites la fierté de notre ville vous faites la fierté de Thiès. Moi aussi, votre maire, je suis fier de vous. Je me les représentants des partis politiques, les représentants de la société civile à travers Abdou Aziz Diop. Nous, chefs d'entreprise, à travers notre frère, notre ami Doumbouya, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, répondre mais su ma njalbeenu wax dama bëgg a indi solidarité Thiès ci li xew ci Saint-Louis Matam Tamba Kédougou tey jii ci fleuve bi débordé ñi nekk ci njàqare ñi nekk ci fitna ay nit bàyyi seeni dëkk génn seeni kër génn seen i néeg ay école tëj ñu nekk ci jafe-jafe kon en tant que maire de la ville de Thiès maa ngi xalaat ñooñu ñaanal leen ñu génn ci jafe-jafe yooyu mais man lu taxawaayu président de la république déplacement président de la république personnellement lui le président de la république dem taxaw ci wetu population yooyu nekk ci ay jafe-jafe président de la république ñi ngi rafetlu sa taxawaay ci wetu askan woowu di jàppale gouvernement bi pour que suñu mbokk yooyu ñu bokk ak ñoom Sénégal ñi nekk ci jafe-jafe ñu taxaw leen ba ñu génn ci fitna yooyu tey jii ñu daje fii ci place Mamadou Dia ngir lancer phase 3 de l'éclairage public à Thiès bi may doog a ñëw dañu fekk dëkk bi lëndëm këris dama koy nettali jamono bu ne premier événement bi ma njëkk dund en tant que maire muy feetu korité ma dugg taxi di wër dëkk bi muy jour de fête guddi korité ma gis kees yëpp génn ma gis parents yëpp génn ànd ak seeni njaboot mais avenue yëpp lëndëm ma ñëw promenade des Thiessois ma fekk promenade bi fees dell dell ak ay nit ak ay parents ñu ànd ak seen njaboot mais promenade bi lëndëm kër yi ma ni Thiès mérité lii lëndëm gi yàlla teguñu ko ñun ñoo ko teg suñu bopp guddi googu laa jël engagement ni Thiès dina tàggoo ak lëndëm bi ñuy doog ñëw amuñu woon ay moyens mais ñu góorgóorlu woon ba taal promenade bi ak li ko wër bi ñu ko taalee mu nekk un événement ñu gis kees waaye fierté bi ñu àndal mais booba dañuy doog a ñëw amuñu woon ay moyens yu bëri loolu moo doon phase un éclairage public ñi defoon ci soixante cinq millions ñu dem daaw phase deux phase deux boobu ñu jagleeloon ko quartier populaire yi li ñuy tuddee quartier périphérique quartier yoo xamante ni ñoom dañu yaakaar ni sax xanaa ñoom ñu ci Thiès je pense à Médina Fall extension par exemple pourtant Médina à Darou Salam mais pourtant Darou Salam la bokk fayu un fayu deux quartier yooyu yëpp ñu éclairé ko ñu éclairé Cité Lamine ñu éclairé Diamaguène ñu éclairé dixième ñu éclairé quartier Malick Sy ñu éclairé route Dakar ñu éclairé Thiès Nord ñu dem aussi Médina Fall ak yeneen ak yeneeni quartier phase 2 boobu ñu ngi ci defoon presque deux cent millions tey ñu jublu ci phase 3 éclairage public ñu war a moderniser la ville de Thiès les avenues de Thiès li nga xam ni mooy xar kanamu Thiès benn mooy avenue Camp bi mais avenue Camp bi c'est le visage de Thiès ku dëkk dugg Thiès ton premier contact avec la ville mooy c'est l'avenue Corbe ñun mooy suñu Champs-Élysées 2004 ci 44 44 avec Idrissa Seck ci la defoon li ñuy wax le réseau 44 44 il y a ans mais vingt ans kon réseau boobu màggat na li xewoon il y a vingt ans xewi na tey réseau 4444 boobu sodium la sodium sodium mooy làmp yi nga xamante ni su ngoonee day tàkk mais day nuru sondeel dafay zone dafay rouge du leer réseau boobu nag laa bëgg a moderniser ma indi réseau bu gën a moderne méngoo ak jamono méngoo ak dayo Thiès muy réseau boo xamante ni day basculer vers le vers LED lampadaire kon war nañoo éclairer avenue Kom avenue Léopold Sédar Senghor mooy avenue bi jaar ci wetu mairie ay Nina Fall Lat Dior Houphouët-Boigny madame Bey mu Mourtada Mbacké Ousmane Ngom war na ci bokk Malick war na ci bokk Xavier Ndione war na ci bokk pour ñu moderniser les grandes avenues de Thiès ñu basculer vers la LED ñi def ci ak promenade des Thiessois ak li ko wër ñi def ci trois cent quarante 347 millions mais yamuñu ci rek éclairage phase 3 Thiès dafa bari ay embouteillage mais d'abord pourquoi ma gëm éclairage public éclairage dafay indi sécurité jigéen ñi xam na lan mooy sécurité guddi bari na ay agression bari na ay viol yoo xamante ni su éclairage amoon loolu du am éclairage day créer emploi am na koo xamante ni bu éclairage amee dina mën a liggéey guddi am na lu ñuy tuddee économie de nuit économie de nuit boobu pour mu dox il faut éclairage public am mais aussi dafa créer bokk ci cadre de vie ville dafa war a am cadre de vie xale yi mën a génn féexlu même bu ñu amul xaalis bokk na ci xeex bi may xeex pour place yi ñu privatiser yëpp ma nangu ko parce que place yooyu kenn waru ko privatiser ndax am na koo xamante ni mën na dem restaurant fay il est jeune wala am na parent boo xamante ni war na am possibilité ànd ak njabootam dem ci ay place publique yu ñu aménagé ñu féexlu fa su ngoonee ñu ñibbi ca duñu fay dara et je vous donne pour cela li ñuy def fële ci place de France je vous donne rendez-vous à la fin de l'année nous allons rénover la place de France ñu tuddee ko place Michel-Anne déedéet place de France ñu rénover ko ñu démocratiser ko ñu defar ko ba waa Dakar bi jógee Dakar ñëw di ko xool mais yamuñu ci éclairage public rek dama doon wax ni Thiès dafa bëri embouteillage parce que Thiès dafa màgg léegi il faut ñu organiser circulation suñu mag yi ñoom ñoo xam feu tricolore mooy feu rouge mag ñi nee nañu amoon na Thiès mu njëkkoon bi feu rouge di doog a ñëw Sénégal Thiès lañ ko jëkk expériment expérimenté mais fi ñu toll amatul feu rouge xale yi bu gisul feu rouge ci film bu ñuy seetaan wala ñu dem Dakar duñ ko gis j'ai engagé deux pour ñuy def les travaux de petit Colobane et c'est la même entreprise ERT moo gagné le marché des feux rouges gagné marché éclairage public à Thiès et li ñuy séntu ci éclairage bi d'ici la fin de ak li ñuy prévoir ci décoration publique di ngeen xam ni kenn du Thiès et nous préparons du lourd à la fin de l'année et je vous au mois de décembre en ensemble ñu fête Noël fête fin d'année du bokk ak daaw te bu boobaa dinañ xam ne aussi roy du nuyoo jataay bi wax leen ci yenn projet yu mag yu ma am ci 2025 bi ak waa Thiès xam ni suñu liggéey day doog a tàmbali ak yéen li nga xam ni mooy place de France dinañu ci engagé ay travaux yu mag a mag a mag yoo xam ni c'est plusieurs milliards pour ñu moderniser ko ba mu tolloo loo xamante ni dina méngoo ak dayoo Thiès gis ngeen dëkk bi ci wàllum pavage dafa manqué bu baax a baax a baax quartier yu bëri dañ ko waroon a ko comme Dakar place publique yu bëri dañ ko waroon a pavé marché public yu bëri dañ ko waroon a pavé les lieux publics les lieux de muy juma muy église yu bëri dañ ko waroon na pavé am naa ci projet bu yaatu bu ambitieux ci 2025 bi incha allah dinañ ko tàmbali bu baax a baax ci cellule bi cellule bi ñuy feebar war a faju mënuñu faju chaque jour ñu ñëw à la mairie ñi leen di defal ay prise en charge ci jàpp teg nañ benn programme cellule boo xamante ni mobiliser nañ de l'argent pour que vingt mille Thiessois avant la fin de l'année dugg ci vingt mille Thiessois et ci cellule boobu dugg ci yomb na parce que trois mille cinq cent la nit ki war a cotiser pour dugg ci programme mu boobu mais 3500 yooyu 2500 yi mairie bi moo la koy cotiser Thiessois bi 1000 francs rek lay cotiser pour programme mu sémi bopp dinaa wax ci bourse scolaire ndax xale yu bëri dañu bëgg a jàng bëgg a def formation école yi cher formation boo dem ñu laaj la soixante mille quatre vingt mille cent vingt mille cent cinquante mil francs parent boo xamante ni da ngay daw dépense nan ngay mën a fay quatre-vingt mille francs par mois parent boo xamante ni da ngay daw ngir jënd mburu nan nga mën a fayee soixante-dix mille francs wala par mois loolu moo tax ma taxawal programme bourse scolaire ngir jàppale jeunesse su Thiès ndaw Thiès yi nga xam dañu war a jàng daaw def naa ci plus de cent millions ay doomu Thiès mairie bi fayee leen ñiy jàng ren def nañ ci deux cent trente huit plus de mille Thiessois di ay doomu Thiès di ay góor jigéen di jàng à travers trente six établissements mairie bi di leen fayal ñu war a def formation ñu war a jàng yu war a teg lenn rek lañ ci jublu jubluwuñ ci ñu ñëw di remercier monsieur le maire non non non non xale yooyu nañu jàng am seen diplôme nañu tekki ñëw suba comprendre ko ñu seen wéy jur ñun loolu lañ ci jublu ci cinq bi bourse scolaire yooyu dinañ ko yóbbu ba plus de trois cent millions et suma ambition mooy fii ak deux ma mën a jox des bourses étrangères doomu Thiès ñu mën a jàngi bitim réew ñu bu nag donc loolu ci suñuy projet la salle municipale aussi bi ma demee Russie dem Sébastopol ñu am fa ay projet yu bëree bëri ak Sébastopol yoo xamante ëpp na un milliard d'investissement ak Sébastopol sur un plan d'action boo xamante ni septembre 2024 septembre 2025 donc la ville de Sébastopol jël engagement yi dinañu jàppale à Thiès ba ñu taxawal SAMU municipal loolu aussi mais aussi ñoom ñu am engagement jàppale ñu ba ñu le stade municipal bu Maniang Soumaré def ko piscine olympique loolu aussi bokk na ci projet yi nga xamante ni mais aussi ci 2025 bi dinañu dem ci phase 4. phase 4 de l'éclairage public ci 2025 phase 4 éclairage public boobu ñi ngi ko jagleel quartier yi dama ni délégué de quartier bu ne jox naa la fiche fiche laaj la sa quartier ñaata lampe mooy tàkk ñaata lampe ñoo fay ñaata poto lampe la manqué ndax quartier yu bëri dañu manqué ay poto lampe li ñu ci jublu mooy Thiès du am benn quartier buy jooy samay lamp tàkku donc loolu ñu ngi ci phase 4 bi jëm ci phase 4 éclairage ci deux mille ci deux mille vingt cinq loolu lépp bokkul ak li ñu def pour le mouvement sportif pour les clubs de Thiès pour le mouvement nawetaan je profite de l'occasion féliciter ASC Defar R100 moom mi nga xam ni moo gagné. la finale de la Coupe du Maire mais aussi ma encouragé espoir bu cité Senghor pour vous dire que j'ai une grande ambition pour notre ville pour vous dire que nous voulons faire de Thiès une ville moderne une ville du XXIe siècle nous voulons repositionner la ville de Thiès Thiès a une place mais il se trouve que la vraie place de Thiès c'est d'être toujours à la première place si nous ne sommes pas à la première place nous ne sommes pas à la bonne place nous devons être la première ville du Sénégal dans tous les domaines dans le domaine de l'éclairage dans le domaine de la culture dans le domaine des dans le domaine de l'urbanisation nous devons être premiers. C'est ça la vocation de notre ville. Être premier et être meilleur. Je me suis donné l'ambition et de faire de telle sorte que les Thiessois puissent retrouver leur fierté. Et c'est pourquoi nous avons eu de grands projets, de très grands projets pour notre ville pour en faire une ville africaine dans tous les domaines. xam naa ni bëgg ngeen ma mais yaakaar naa ni maa leen raw kon boog ay bëggante la ay bëggante la.